ak sama application Wave mën naa ci jaarale sama addiya mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci menu paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu indil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a ci Touba ca kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci compte Touba ca kanam jërëjëf Serigne sëriñ salaamaaleykum wa ñoo ngi sant yàlla du julli ci yonent bi alayhi salaatu di sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool kàttanal ko wéral ko dëgëral ko di yëkkati kàddu ci turu Touba ca kanam gépp jiital ci Serigne Abibu mi nga xam ne mooy kilifa gi te amoon yéene fekk jataay bii waaye ngant tax ak tolluwaayu jamono président Bougane kon nuyoo yëpp nag ñoo ngi koy yëkkati jëbbal la ko yow ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci dëkk bu tedd bii di sant yàlla bu baax nag ci sa teewaay bi di la ci sant di la ci gërëm di la ci jaajëfal ndax eh, ni nga ko waxee tànk yi tànk yi taalibe la jëf ji jëfi taalibe la te wane nga ko ci anam gépp ndax dëgg la eh, ci li ngeen di yëngu nekk eh, homme d'affaires nekk opérateur économique nekk tamit koo xam ne da ngaa am yéene ci réew mi day wane kon bu réew mi soxlaa nga sol saw daal lu jóg rawatina nag fi nga xam ne fi nga bokk ci wàllu pas-pas te mooy Touba gi nga xam ne moom la ñu bokk nekk. yàlla dogalee am lu fi suñu borom wàccee di loo xam ne tawféex la ndax bépp nattu suñu borom bu mu wàccee boo ko xoolee mooy gën ca ñam ko wàccee tey Serigne Touba day koo xam ne eh, lépp lu yàlla dogal neex na ko. ndax noonu la mas di doxee te loolu mooy feeñ ci am njàngaleem te loolu la yar ay taalibeem kon boo jógee indi eh, sa addiya yoo xam ne yaa ngi ko jëmee ci jafe-jafe bii tànn Touba ca kanam jaarale ko ci loolu Touba ca kanam gépp amel nañ la cant amel nañ la njukkal eh, di la ci jaajëfal bu baax di la ci ñaanal lépp loo ci yéene ci lu baax suñu borom defal la ko ci waaye di la ci ñaanal tamit bépp yëngu-yëngu boo xam ne yaa ngi koy def suñu borom defal la ci barke defal la ci lañ ci lañ ci lañ ci bëgg ndax Touba ca kanam kat day kuréel goo xam ne dara toxu koo jóg lu dul liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi day kuréel goo xam ne tamit ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha rek lay dox bépp jéego bu mu yëkkati mbaa mu koy teg day fekk mu dëppook ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha jëflante gi muy jëflanteeg kuréel yi ak service de l'État yi ak ku mën a doon tamit ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha lay tegu liggéey bi nga xam ne tamit ci la ñu nekk nii tubaati Ca Kanam di ci yëngu ba Touba Kanam tàmbalee ak léegi te mooy ci secteur yi wuute ba nga xam ne tey jii bu ñuy wax modèle de développement économique wala model de développement communautaire wala économie euh, financement participatif yooyu xeet yëpp bu ñu koy wax Touba Ca Kanam la jël comme exemple li ko waral nag mooy daa teg tànkam ci njàngaleem Serigne Touba ci la mu waxoon ca njaareem ba muy taxawal jumaa njaareem ji laajoon ñaar fukki dërëm yi ak juróom-ñett ci njàngale moomu la tegu waaye boole ci nag njàngaleem suñu sang bu baax ba Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma te mooy laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam Touba ca kanam day laaj ñi lu ñu man di ko def fu ñu xam ba noppi di ko leeral loolu moo tax depuis bi mu tàmbalee ak léegi li mu investir ci dëkk bi bu ñu la waxoon ñaata la mën ngaa estimer jàpp ne ay cinquantaine de milliards la alors que ci 11 milliards 500 au maximum 12 milliards ci lay tollu li ko waral mooy ñi ciy yëngu ñëpp ay volontaires lañ yoo xam ne dañuy jaayante li ñuy def apport bi ñuy indi en terme de main d'œuvre loolu boo ko évaluer woon Touba ca kanam dañ naan lim def ci dëkk bi mën na minimum 20 à 30 milliards waaye ginnaaw ñi ciy yëngu ñi ëpp ci ñoom dañuy jaayante takk seen digg laxasaay di liggéeyal sëriñ bi te yàlla tax loolu moo tax Touba ca kanam mën a def ay réalisation yu mag ci kaw bu te loolu mooy di Serigne Touba woote woon mooy xidma kon nag ci cadre boobu ci la Touba ca kanam taxawale woon euh, kuréel gu ñuy wax opération wàllu loolu mu ngi am boobaak léegi war naa man ñetti jàpp ñeenti at nga xam ne at mu jot dañoo am équipe boo xam ne dañu leen wutal équipement nécessaire yi tax ñu mën a def ay drainage des eaux pluviales am euh, personnel am ay engins lourds ak i pick-up ak jumtuwaay yi ñu war a am yëpp ak ay moto pompe yoo xam ne heure bu nawet bi tàmbalee ñu tàmbali liggéey boobu ba nawet bi jeex léeg-léeg sax ci biir noor bi dañ koy liggéey ndax Touba dafa am napp bi yàlla dogalee nag ren ji aussi ñu nekk ci boobu liggéey sëriñ Abi bu amoon xalaat bu am solo ne woon nañ ko ci yokk te mooy nañ fexe ba préparer benn site de recasement boo xam ne ñu ngi ko tuddee Kër la mu nekk benn hectare boo xam ne sëriñ Seck C3S moo ko ko abal ñu aménagé ko def ci yaa ca war a nekk yépp te booba taw bu bari bii toll ci 140 mètres cubes euh, ñu koy xayma ci 140 millimètres taw boobu amagutoon kon loolu dafay delluwaat ci anticipation bi nga xam ne képp kuy yor lu mbooloo bokk da nga ko war di sóoraale bi yàlla taw bu bari bii ñëw nag ci la njariñ loolu feeñe lool ba fi ne nii sax liggéey bi ñu demee ba mu àgg ci finition yi nit ñi dañoo jàkk-jàkk rek song ko ne amatuñu fu ñu nekk ñu ubbil leen ko ñu nekk fa mu nekk bërëb boo xam ne moment bii may waxee yow am na sax ay action yoo xam ne état senegal indi na ko ña ngi ko fay def lu mel ne ay tente euh, lu mel ne ay mbaar ña ngi ko cay dolli ngir mu gën a mën a accueillir ay nit euh, liggéey yu mel noonu nag boo ko Touba kanam dee def dafa fekk ne ni ma ko waxee léegi dafa teg tànkam ci njàngaleem Serigne Touba ci biir loolu nag yàlla defaat ci jeneen tawféex mooy liggéey boobu Touba ca kanam nekkoon di ci nam na bi Cheikh Mouhamadul Mountakha dafa yëkkatiwaat leneen ndigal loo xam ne dañoo gëm ni dafa ñëw di renforcer Touba ca kanam te mooy woo commune bu tubaa ndax ginnaaw ñoom ñooy premier magistrat de la ville lépp lu yëngu ci dëkk bi dafa concerné commune woo daayira Hizbut Tarqiyyah ci wàllu organisation ak seen njàmbaar ak seen pastéef doon gi ñu doon ay soldats mu ne àndaloo leen yëkkati 200 millions teg ci seen loxo ne yéen nañ ko fas yéenee liggéeyal ci liggéey bii Touba ca kanam nag ginnaaw ngi ci woon te ndigal li benn la te ma nga ca lee boole lépp rek jël lii tamit fas yéene ko caa dugal lépp di benn kon sant nañ bu baax a baax ci teewaay bi gërëm la gërëm ñi nga àndal jaajëfal ci jéego yi ak tànn gi nga tànn Touba ca kanam jaarale ko ci li nga jëmee ci biir liggéey bi kon loolu ci turu mboolem ñi fi teew ñoo ngi ciy sant ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay jaajëfal ñoo ngi lay ñaanal di masawu ñëpp di leen masawu yéen tamit ndax Touba moom eh, murit yëpp fi la ñu dëkk benn ñu dëkk fi ci jëm wala ñu dëkk fi ci xol kon lu fi xew rek mën nañ ko masaw ñëpp masaw ko senegal gépp jaale ñi nga xam ne seen i eh, bakkan waaj wàññeeku na ci suñ borom dolli leen yërmande ak jéggale wasalaamaaleykum ak sama application Wave mën naa ci jaarale sama addiya mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci menu paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu indil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a yónnee ci Touba ci kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci compte Touba ca kanam jërëjëf Serigne Touba.